علمتها من الأهداي ترى ما بيان ربي وباب لم يكن مرتيا aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim aouzu billah bismillah inna wali yàlla gannaaw ba nu sante buur bi subhanahu wa taala di julli ci yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa tey sant sunu yaakaar tey ëllëg cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul di ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba lépp lu mu naanal liggéeyal ko lislaam bi rek di ci yoonu ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lu yéene ji am rek yàlla na ko kàttan gi ëpp noonu leen jàlle ba baax daal nag ndur nuyu sunu bunt ci yoon bi sëriñ Khadim Lo Gaydel borom ndaam ibnu sëriñ Moustapha Lo mu sëriñ Modou Lo sa di ko ñaanal fan gudd lool bu ànd ak ba lépp lu mu namm liggéeyal maamam bi tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba ak mission bi mu yor lu lépp lu mu yéene rek yàlla nu kàttan ëpp te bu gëstoo gis na ci ginnaaw ko siyaare siyaare waa Baxdaad gépp jàll ba jàkkee murit siyaare waa jàkkee murit gépp ci njiital Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré bon ko siyaare rek jamono Serigne Sall Touré gépp dañuy daal dugg ci biir di ko ñaanal sunu borom gën a dëgër ay taxawaayam noonu la ñuy def nag jàll ba jaxaaw ni ko daan waxee rek siyaar kilifa gi nga xamante ni tey nag moom lañ fekk si ndax jotaay bi euh, day di dina dina dina dina mucc ayib muy Cheikh Bara Cissé mu El Hadj Ndiouga Cissé di ko ñaanal dañ ko daan ñàggee ñaanal rek sunu borom yàgg ko fi loolu tamit ànd ak wér ba lépp lu mu naanal liggéeyal maam ju tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii liggéeyal ko ci ummal islam bi yëpp fa waajuram tegoon tànkam ba liggéey bi mu yor yàlla na ko àggale ak sagoom di ziar waa jaxaw gépp ñoom Cheikh Moussa Seye ak ñoom ñoom ñoom sunu yaay yi fi nekk waa groupe sopp na bi yëpp nag noonu la ñuy jàllan dama kër Cheikh Abdoulaye Al Yaqin ziar xalifa ba soxna Saybata Aydara di ko ñaanal sunu borom gën a yokk ay wéram ak ay tawféexam ci barke Cheikh Abdoulahi Al Yaqin su ko nuyoo rek nuyu rakkam ja soxna Salman Aydara di ñaanal gudd fan ak wér noonu la ñuy def na jaaloo ak sëñ Babacar Ngom ziar xalifa ba Serigne Mbaye Ngom rek jàll nuyu jëriñum Serigne Modou Ngom ak njabootu Serigne Babacar Ngom gépp bu ñu nuyoo Serigne Modou Ngom rek nga képp ku Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noo njaboote rek da ngay daal di dugg ci e, biir nuyoo boobu noonu di nuyu nag waaye RTT TV bi nga xamante ni émission Al bi ñuy def ci njiital Serigne Mamadou Seck di ko ñaanal sunu borom gën ko dolli tawféex ak directeur programme bi Serigne Khadim Soumaré ak cameraman bi Doudou ak technicien yeeg Babacar yëpp tey nag ñoo ngi fii ci jaxaw tey ku gis jotaay bi doon ñu waaye nag jotaay bi day changé tuuti ndax nan waxtaan ci daara ji ak wàccaayi daara ji ak al ihsan ak mu indil ñu ay leeral ci al ihsan indil ñu yu bare bare bare bare tey nag dañoo ñëw ku gis ñu jotaay bi xam ñu ngi waaj bis bu rëy ñu ngi wàcc weer wu rëy a rëy a ñu ngi wàcc lu màgg a màgg màgg fa sunu borom muy màggal gi nu jëm di di di di dix-huit safar tey yii altine gi doon séntu bu njëkk bi ñu sëñ baara woon ñoo waxtaanal tuuti ci ku tedd ki indil ñu it màggal gi ak njëriñu màggal gi li sëriñ Tuubaa woote buñ ko wootee lan moo ci fi fekk loolu it dinañ ci indi ay leeral bu baax sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo. Asalaamaaleykum nuyu di nuyu sa caméraman bi waaye di nuyu waa télévision bi yëpp ci njiital directeur Mamadou Seck ak personnel yi liggéey ci télé bi yëpp leen ñaanal taw feexu sëriñ bi yal nañ ko yàlla boole ñun ñëpp tey nag ñi ngi ñëw al ihsan hmm. xam naa bi di ñëw it pour gis la it yombul hmm. ndax itam xam naa loolu dina ñëw ci tegtal ba hmm. bi incha allahu rabbi Euh, tey sëñ Baara ku gis weer bi tey ñu ngi ci euh, muharram hmm. jeexitalu muharram hmm. war a dugg ci weer woo xamante ni hmm. mooy sunu sabitage ni murid yi ndax sëñ Moussa Ka ma ngi koy wax ci tasaw sakóor naan bu du woon a gi wolof nasaraan te kon billaahi ñi ñëpp dem niiraani te sëñ Moussa lépp lu mu wax rek ci ku tedd gi la ko la ko la ko la ko la ci ëpp ci ku tedd gi la ko déggee ci yoonu géej gi daanaka itam euh, ñu nekk ci weer wi di waaj weer bi di waaj weeru màggal gi lañ doon mën a wax. ci hmm. ci ci sëriñ bi. Hmm. ba pare nag buñ dikkee nga dikkal ñu ci njëriñu màggal gi. Hmm. waaw sëriñ As maa ngi lay nuyuwaat di la ziyaaraat bu baax. yoo xam ne auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Euh, comme ni ko waxee rek ñu ci njeextal muharram nga xam ne weer la woon woon xam bu fi jaaroon. tabaarakalaaw gis nga xew-xew yi ci amoon lépp weeru weeru barkeel la mm-hmm. waaw weer wi gënal yàlla ci weer wi saxaru laayil muharram mm-hmm. mooy weer weeru muharram bi mooy weer wi ñu nekk nii weer wi ñu nekk nii ci la ci xewoon ba ci mm-hmm. suñu borom yi yonent yaag yonent yàlla aadama yonent yàlla yunus ak yonent yàlla no maanaam ca gaal ga yonent yàlla yusuf ak doomu bàyyi bi ñu taal Ibrahima. Mm-hmm. ak safara. Mm-hmm. safara ga ka mu duggoon ba yàlla mu muccal ko ci ci bis beeg. Mm-hmm. yonent yàlla Idris. tabarakallahu bu ko yàlla yëkkatee ak yonent yàlla Isa. alayhima salaam. leen yàlla yëkkatee ñi dem ci kaw. yonent yàlla Daawuda. Ah. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mboolem yonent yi ci bëri am nañ ci jaar jaar. jaar ci weeru Muharram. ci weer la woo xam ne. wu wu bëri ay mbir la. parce que ci xewoon dafa bari mm. trop trop trop. waaw ndax suñ boo xoolee suñ maam Adama rek. dina mm-hmm. ko yàlla génne woon. Mm-hmm. Euh, ba ko suñ borom indee ci àjjana. Mm-hmm. ne ko mboolem xéewal yépp jox naa la ko. waaye nag. am na loo xam ne moom moo dama la ko tere bul ko laal. muy garab gee moom bul ko jege. wala taqraba asi sajarat boo ko jegee rek fatakuna naa salimin di nga ma tooñ sax saytaane jax-jaxal ci xelam ba ba ba mu jëfandikoo garab ga mm-hmm. nit toujours ma ne nit dafa bañ kumpa trop dëgg la nit dafa bañ kumpa trop dëgg la xëy na ah, laal gi sax amul ko woon benn njariñ waaye foog mu xam xam xam kumpa gi dëgg si nga noonu mm-hmm. yaa adam waxul naa yaa Aadam uskun anta wa zawjukal jannat wa kulaa minhaa raqadan haysu shi'tumaa wa laa taqrabaa haazihi shajarata fatakuunaa mina saalimiin ba seytaane in ñëwee fa azzallahumaa seytaanu anhaa fa axrajahumaa mimmaa kaanaa fiihi wa qulnaa ihbituu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ilaa hiin waaye nag fa fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim la ca mujj ga mu am solo mooy ba mu ko defee ba pare yàlla mu ba mu tuubale yàlla ba yàlla jégal ko ci bis bi ci weer wi yi ñu nekk ni nga xam ne tey jii lay tàggatoog ñun tabarkàlla euh, muy weer woo xam ne tamit wu mat a bàyyi xel la mooy muharram bi ñu waaw tey jii nag jàpp naa ne dinañ dinañ tàggoog weer wi. ndeysaan jëm ci weer wi ngay wax. Mm-hmm. weer wi nga xam ne. Mm-hmm. Euh, jàpp naa ne ñun lu ñu am rek. ci lañ ko am. dëgg ndax ren dafa daje téeméeri màggal. Mm-hmm. bi ñu commencé màggal ba léegi ren mooy téeméeri màggal. dëgg la mu am leneen lu yéeme mooy le 10 bi muy samedi bii ñu jëm. ci lañ doon génne sëriñ bi di ko yóbbu. ndeysaan ci la sax doon wax ni. xarajutoo yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fii seeri safar maanaam tombeeg bisu gaaw muy tombeeg tamit ren bisu gaaw le 10 août mu mu yéeme trop nag moo tax bis lu ci waay ñaan yàlla mën na ko nangu li mu lëkkaloo daa bari moo bëri moo mel ne ku tedd ku tedd waaw waaw ku ki bi ñu koy bi nga ni ci lañ koy génne lañ koy génne lañ doon xaraj waxtu ba waaw waxtu wa waaw mhm. mooy diggante maanaam waaw mhm. yor yor gi mhm. jàpp midi lii di diggante boobu waaw moom naa xarajtu mm, mm. yow ma sa saamina sar mm. waaye maanaam maa ngi génn bi su gaaw bi waaye ci bisu euh, fukk fukkee juróom-ñett ñu ne ko foo jëm mu ne li xidmatil muxtaari fii séeré safar mooy liggéey yonte alayhi salaatu wasalaam waaye ba mu ñëwee def naa ni tukki bi ñëwee ñëpp seen xol sedd na ndax ijaal rujuhi ilaa xaw mi saxla ndeysaan wal tag fi naa yow ma jam il xalqi niiraana mm-hmm. bi mu ñëwee daf ni sëricë bi muy indaale de mooy yàlla jéggal na ñëpp ña doon sonal ko topp sax ñu ne ko yow nooy def ñoom mu ne afawtu anil ahdahi turran li wajhi man ndeysaan dëgg la dafaahum mhm. li xayri sarmadan lastu adfaw mhm. mboolem ñi ma toppoon doon ma sonal ak yëpp mhm. jéggal naa leen ndax bu du woon nag sonal gi ñu mën a lii ma am tey du ma ko am dëgg la kay mu ko jaar nag nag da ko yàlla solee lépp mhm. moo tax mu ne fan saarifan immati li rabbi taala ndeysaan raajiyan sax yoxoo bi maahin mahin ndeysaan mu mujj ci alxuraan jooju la ko la ko suñu borom lëkkaleeg moom mhm. mu sopp yitteem mhm. soppi léppam nga xam ne léppam dafa borom boromam boo xoolee sax ci jawartu li nga xam naan man de yàlla ma setal ci lépp lu dul moom dëgg la lépp lu yàlla néewul néew ma ci bara anil xaaliqu min waxaade nii man laa yuraa ser waaw lu yàlla néewul boo ma seet doo ma gis dëgg la hmm? maasikan bil kitaabi maska dariri hmm. bi yedil xaaidil basiril muini hmm. mu ne lii daal Alxuraan nga xam bi may dem ci géej gi damaa ànd moom jaxasoo ak moom mu jaxasoo sama deret dëgg la mu ne Alxuraan de dama cee jàpp ba na na comme ni euh, silmaxa ki kay womata maanaam tum tum tum di dox seen diggante waaw nee na yet boobu. nam na nam ko jàppee nga xam dina ko jàpp jàpp bu dëgër. wommat ko ba fi mu jëm. noonu laa mel ak. alxuraanu karim. Mm-hmm. maasikan bil kitaabi maska dariiri. bi yeddil xaaidil basiiril muhiini. ndeysaan xam nga loolu bu ko bu ko defee. dëgg la ñu ne ko lum lum la mën a indil. Mm-hmm. mu ne wax wax isi. warif mm-hmm. xati wa kunuusi. wa bihi artajil xiyaadal uruuni. ndeysaan mu ne sama daraja bi yàlla yëkkati tey ma ma kawe ñëpp. maa ngi ko amee ci yëkkati gi ma yëkkati alxuraan hmm? dëgg la rafa leen xuraan rafan xabada man saa oo taxadu mi fan xabada lan la ko amee hmm. ci ci alxuraanul karim hmm. moo tax mu ne wa wa insi wa rifxati wa kunuusi wa bii arta jin xiyaadal xuróoni ndeysaan ci alxuraan bii ma jàpp muy téereb yàlla bi sellal ko di ko jàng di ko jàngale mu ci laa kawe lépp lu mooy sama magasin mooy sama lépp. Mhm. ci laa amee mucc ci noonu yi. lépp ci mucc gi daal lépp ci barke alxuraan ci barke alxuraan. Mhm. ne ko boo feebaree mu ne mhm. alxuraan mooy fee alxuraan mooy faj. ndeysaan rabbi xabil istixaamatan wanti laaxan. bil maraadi. gis nga wal tamu an nii dafii mu ne istixaama bi nga xam tey moom laa sax ba lépp luy lor sori ma. maanaam tamit ci ci rajo rabbi abli istixaamatan wantil axan mm-hmm. bil maraadi waltamu anni dafiini mm-hmm. hmm? ñu ne ko sa mu ne ajilil fatta mm-hmm. walta jut bi fu yoodin muxjilaatin sak ban si kaabi du jooni mu ne fatu bi ma doon ñaan yàlla bi mu may ma ko tam ma may mu ci weeru koor ci ci daal xudus bi ah. gis ngeen jàkkee jàkkee daal xudus bi ah, lalu ba mu fa lalu woon ah. ba génn nee na ca la ca ma yàlla roofee fat ko ndeysaan rabbi rabbi waaw xajjilil eh, fatta wal ta jot bi fu yoodin mux jilaatin sak ban si kaa bi bi di jooni ndeysaan rabbi waf kuk mm-hmm. asiri warax nii fa inni mm-hmm. bi sunoo mu kabalun fii si jooni mm-hmm. kon kon nga gis ne alxuraan bi mu ci jàppee ci la ko suñu borom indil lépp daji jéng yi dégg nga ne waf ko rabbi waf ko asiri waraxanii fa inni bi sunoo bi mu kabalun fii su jooni ndeysaan kon xam nga mhm. alxuraan ci la sëriñ bu jàppoon ba indi ba taxawal yoonu murit taxawal ko jël joom doomam mi sóobu leen ci mhm. ba ñëw mhm. yaatal mbir mi commencé ko sëñ Mbër Moussa mm. sëñ Fall ba sëñ Abdou Lahat mm. ba ci kii fi mujjee jóge mm. ñoom ñëpp sëriñ bi daf leen tracé woon nag yoon boo xam ne la ba tam moo tax ba mu fi jógee leeral lépp ba ci sax ba ci sax ci cadre alxuraan bi nga dikk mhm. mu mel ni jamono ji ko gis sëñ mu taxaa sax mhm. ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ko a firiwaat mhm. ah, dajale dajale tout ñu mokkal alxuraan yëpp ñu toppaat alxuraan nga xamante ne grand prix international bi war a am sax nga xamante ne sëñ Tuubaa léppam alxuraan la day day dikk ci li nga wax ni waaw ndax sëñ Tuubaa euh, bi mu fii door a bàyyi ko sañ sëñ Mbàkke Bousso biñ ko laajee ne ko yow euh, yan yan la fi sëriñ bi bàyyi ay jumtukaay maanaam projet yi mm-hmm. yan mébét la fi bàyyi woon mm-hmm. ndax yow suñu Mbàkke Buso gis nañ ne takk woon nga ak sëriñ Tuubaa loolu mm-hmm. dafa leen daal ñett ñett projet daal mën naa ko ñëw xëy na nag mën na ëpp yooyu mais man ne mu ne man ñett yi ma xam ñett muy daana mébét dem dem Makka ziyaare ñeent alayhi salaatu wa salaam moo tax waaw def ajali ko ci raayee sax dina ko daana ko junj lu bëree bëri ndeysaan ci boo demee ci rajo day juju lu bare bare ni ak neexoon ma dem siyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yàlla dogal ko ci saayir waaye sëñ Fallou dem dem na mottali laaj nañ ko ak ban mu ne eh, jumaam ji daana mbibët ak neexoon bu bu bu bu bu yegg ma ma fekk ma fekk ko ndeysaan daana ko mbibët troisième bi nag yow moom ngay wax mm-hmm. muy wàllu xam-xam mm-hmm. muy daara joo xam ne nit ñi dañuy bàyyi ko fu nekk jëm sàkku ji xam-xam yàlla mu ci ayu suñu ma taxaw dëgg la mu jël ay milliards mm-hmm. def ci mm-hmm. tey Touba boo fa jàngee soxlaatul sax ngay dem Maroc wala Égypte dëgg la mboolem xam-xam yëpp indi na ko bi Touba tey da nga koy fekk bu njëkk da nga naan jàng pare dem jàng ko alxuraan génn mm-hmm. wala Égypte wala Maroc soxlaatul ba moo koy alxuraan soxlaatul ngay génn dëgg la mboolem loo soxla ci xam-xam. tey Tuubaa mi kon li mu doon wax ni. yàlla may ma. sama aajo ma faju bilaa ijaalatin li jaxaati saami wa siini kon accident tawajjuhi di la si yulil maqaama bilaa ijaalatin li jaxaati saami wa siini tey de soxlaatuñu saam ak siin tey Tuubaa ñun mooy suñu saam ak sunu siin ndeysaan dëgg la ndax li ay sëñ ma taxawaa li mu fi indi mm-hmm. jël ay milliards rafaatale ko mm-hmm. alxuraan mm-hmm. yaatalaat alxuraan ba képp tey koo xam ne jàng na ba ba mokkal alxuraan da ngay toogaat Tuuba lépp la soxla ci xam-xam nga am fi tey grâce à sëñ Muntaxa kon ñu ngi koy laat mu yàgg fi téwér fii mu jëlee drapeau bi ak fi ma ko indi de indi dëgg la wul kenn dëgg la ndax ruslawul sëriñ bi ruslawul taalibe bi ruslawul kenn dëgg la dëgg la ndax boo gisee comme ku tedd ki li muy bind sax li ma taxoon a jóg mhm. bi mu naan day yeesalaat dind diine Muhammad lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunatul xaraawa yi ne Ahmadu saa su nekk loolu day gën day gën di fës Sëñ Tuubaa lu dul diine ñoru ko bi mu ñëwee lépp diine la woon am na amoon nu muy defee rek mm. ñu ne biddaa la waaw dafa ni man mm-hmm. li fi bàyyi woon mm-hmm. mu ràpp moom laa ñëw mm-hmm. sof mu ne sosuma waaye dama sof dox de salaatu ni laa tosoon bil aali wa saxabil udul mhm. wa biya jaddidi sabil gis nga mhm, mhm. wa biya jaddidi sabil bilaahi dan awala bi dëgg la moo mooy firndeel ni moom dafa ñëw yee salaat yoon waaye sosul de waaye dafa dafa sof sof di fi yonente bàyyi woon li yee salaat dëgg ba nga xam ni dëgg la même naari màkk yi bu mu ñëwee bu mu ñëwee Touba sax dañuy yéemu dañuy yéemu dëgg la ndax sellalu sëriñ Touba sellalam ak maanaam pas-pasam ak engagement am si yonente alayhi salaatu wasalaam noonu dëgg la léegi léegi mm. sëñ bi mm. mu mel ni ku tedd ki bi mu yaa ngi koy wax sànq bi mu génnee dem ci tukki bi mm. ak li li mu jànkloonteel ci tukki bi ak li ko taxoon na jóg pour sauver sauver nit ñi nga xamante ni euh, euh, ruu yi nga xamante ni boo xoolee ca ca ca njëlbéenu ko ruu yu texe di la woon Sëñ Tuubaa jënd ko Sëñ Tuubaa li tax suñu ru yi sauver da ko jënd loolu waral tukki bi mu demee ni mu ni mu demee ak lim ci jànkloonteel lépp ci wàllu tukki bi mu dem ba ñëw ba ba ba ba ba ba réussir. Hmm. kii mission hmm. léegi bu ba pare wootee waxul ni kaa leen sant ma. dañuy hmm. dañ ko santale yàlla. ci xéewal gi mu ko gi mu ko gi mu ko gi mu gi mu ko jox. léegi léegi léegi ñun suñ tubaab comme tukki bi. ñun ñoo taxul mu tukki. ndax moo ne woon bu dul woon suñu jëmm yi du fanaan benn guddi ci kaw suuf. ah. waaw bu dul suñu jëmm yi. nee na du fanaan bind guddi ci kaw suuf. te dégg naa daan wax ma ngeen naan bu dul woon li ngeen ma topp. yéen ñëpp safara ngeen jëm ah, kon ruu yi lu mu jënd uh-huh. ko fa dal ak yëpp léegi nag mu mu dem ba ñëw indi ñu sëriñ kekk uh-huh. sëfeel nu àddina sëfeel uh-huh. ne nañ ali bu ko neexoon nañ ñu woote nañ nañ nañ may sant bu ko waxul sax bu ko waxul sax ñun dañoo war dafa war moo tax mm-hmm. gis nga bis bii ñuy jëm suba mm-hmm. muy commencement safar commencement safar bi su weer yi feeñee tey bu yàlla dogal bu mm-hmm. feeñ tey bu tàmbalee suba na ci ñëpp mm. euh, def li mu bëgg rek li mu bëggoon mooy mm. jàngale ko ci jàngale ko jàngale ko ci alxuraan mm. sant la ko ci boroomam maanaam bernde ci bernde ñett yooyu ku ko def def nga li ko gënal ku ko bàyyi jotewu sëñ bi dara dëgg ndax daf ni woon euh, fukki ak juróom-ñett mooy lii ñuy waaj nii bu ñëwatee koo xam ne sama mbégte sa mbégte la nañ ko santale yàlla nang nang ma ci santale yàlla sama borom xool li ci gën nag ana mu jàng alxuraan dëgg la salaatu ak tasbihaat mboolem li xeetoog euh, euh, tabaarkalla tasbihaat na nga ko def ak bernde bernde dina waxoon na ni tàmbalee ci ginaar ba ci gileem li ci waaye ma taxeeb li bon mooy daaw ba ren fi loo xam ne di nga mën a sant de sëriñ dëgg la yaa xanaa yaa ngi ci sa bopp yaa ngi sa bopp dëgg la te yow ki nga ki nga ki nga sàggane bisam mm-hmm. bu du woon ak moom mm-hmm. ina la si ne taxan loxo biya mm-hmm. law laa taxan loxo biya la daxaloo naara ba da mawtiin wala muddatan mu ne bu du woon aju gi ngeen aju ci man ma sauvé leen ku ci dee di nga di nga jaari safara jaar kon xam nga kooku moo adduna rahmaanu habli jamil xalqi rahmata man yux nii ani sarri man quraanu xaraxa dëgg la xoolal loolu wallaay lu doy waar dëgg la kay bu ko neexoon yemale ko ci boppam mm-hmm. ak i doomam mm-hmm. ak ku sant Mbàkke mm-hmm. ak ñu sant waaye déedéet rahmaanu ba mu wuyu ko li ne ko habli jamil xalqi rahmata man rahmata man yux nii ani sarri man quraanu xaraxa kon loolu moo tax képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah. ameel nga Serigne Touba cant. ameel nga ko cant. dëgg te war ngaa biti nag profité ci màggalam gi gi nga sant la ko. sant la ko borom dëgg ndax bañ ko fekkee ne ko dañoo bëggoon a xàmmee ñii sa ñooñ. Mm-hmm. ñii sa ñooñ sa njaboot. Mm-hmm. bu ñuy jëflante teraanga mën leen def jëflante teraanga. Mm-hmm. dafa leen wax ne fala tahaadu man raaytum faaw yuxriju laa ilaha illallah dëgg la. man daal bu ngeen bëggee xam sama njaboot. Mhm. mooy képp kuy wax laa ilaha illallah. Mhm. sama njaboot nga bokk. dëgg la dëgg la. yaa malikal mulki. Mhm. yaa man jàlla an xawadin. irham jami jami halwara. yaa haadiyan rada. te xasida boobu xasida bu yéemi la. ndax li tax ma xam ne dafa yéemi mooy sëñ Saalum daf ko bëggoon trop. trop sax waaw trop. ci bëri moom daan ñaanee. ndax keroog bi. naari euh, nu mu tuddati euh, bàyyi ko Louga mm-hmm. am lu ñu leen wax ci sëriñ bi ñu ñëw di ko luñ mm-hmm. bi yëg leen ci baatin mm-hmm. naar ba mu waxoon ne ko jubal dugal taxaw euh, jàngal ma xasid ak yaa jugal taxaw jàngal ma xasid ak yaa rahmaanu yaa rahim mu mu ne ko fekk néew mën a arrêté nag bu arrêté ndax boobu yëg na ci baatin nii takk der yaa ngi waajee Louga di ñëw bi ñu waajee ba ñëw dugg ci kër sëriñ bi ci wanag ak yeeg visite fépp ndax boobu dañ leen xabaar loon dañ leen waxoon ne leen sëriñ bi dafa am ay lu muy guerre bu muy préparé jëm ci yéen ñoom ñi tiit ñëw bi ko sëriñ bi yegee naar bi Mouhamad tubaab yi la wax ni ko jugal taxaw jàngal ma xasida yaa rahmaan yaa rahim mu tàmbalee di ko jàng di ko jàng ba gaa yi ñëw dugg visite fépp xool xool gisuñu ñu lañ leen doon wax lañ leen informé woon ni man kër sëriñ bi gis ñu ko fa ñu taalaat seen oto dem sëriñ bi door ko wax ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko sàllaaw fu ñu koy jànge ay bëy sax duñ fa mbëkk ne sa sàkkaay nit mm-hmm. dëgg la ndeysaan kon xasida gii yaa raxmaan waaw dafa yéeme te sëriñ bi bi mu ko taw taalifee mm-hmm. ñëpp la ko defal dëgg xoolal suñu réew mi mm-hmm. élection yi fi man a jub seeg lépp. Mhm. bañ naan dina tàkk ak nangam nangam. Mhm. jàmm rek a ci mujj. dëgg la mu mu mel ni léegi. Mhm. Euh, comme yaa ngi ci màggal gi. di wax njëriñu màggal gi. ak li nga xamante ni moo taxoon ku tedd ki tukki. ba suñu borom lam la lam lam diggante suñu borom lépp mu mat mm. ba suñu borom def ko li mu ko defal mm. mu ni bis boobu bu ñëwatee nañ ko ci sant la yàlla mm. waxul bisu ñu bisi bi su dem bi la wax bisu dem bi léegi mu ni bu kenn li ko tàmbalee ginaar ba ci giléem ba giléem noonu la ko waxee woon mu wax ni bu kenn def ginaar ba xeeb ko waaye bu kenn def giléem ba naw ko ba ba ba yéem ko léegi ñu gis it nan ngay ko message bi nga xamante ni na dañuy gis ci dëkk bi dëgg la ñu ngi safar di gàttandu bis bi di gàttandu bis bi am na solo ngay waaj ndax looy àdduna loo gis dafa mm. dafa dafa am wàccaay yokkute la waaye dañuy gis ñu bari ñoo xamante ni mm. dañuy def safar di ci di ci fere loo xamante ni mm. màggal gi tax ngay tàmbalee safar gi bu ñëwee doo ko ci def loolu ñàkk xam la rek loolu lan nga leen ci ñàkk xam conseil ak man man daal la ma sëriñ bi digaloon maa ngi ci mm-hmm. ndax daf ndax dafa ni ma woon mm-hmm. màggal gi bu ñëwee mm-hmm. te moom la ma wax moom laa la wax yow moom la wax bépp murit bu bu ñëwatee koo xam ne soo mbégte sa mbégte la la wax la maanaam dix-huitième jour bi. ñu ci bëri sax bu ñu yaree seen seen jur. ci ci ci bis lañ koy lañ koy ren. lañ koy ren ci dix-septième dix waaye ëpp na maanaam ñàkk xam. weesuwul. ngay topp safar bi di xalëp xalëp li nga am yëpp nga sotti ko ci. màggal gi dafa ci dërëm. dafa ci dërëm waaw te màggal gi moo. moo màggal gi moo taxoon yàlla ni. Eh, bëgg naa yàlla ni bëgg naa ku may jaamu mu xam ma d'abord door maa jaamu. dëgg la un il faut ni. xam laan tax bu doon nii. fa in lam ta'rifuuni fa kayfa ta'buduuni mënees na ko wax ni sëriñ bi tamit bala nga koy liggéeyal hmm. da koy xam ba pare mi ngi mel ni julli rek ñu ñu ñu farata war a jot war a julli deux heures waaw nga ni naa dawal naa dawal ñaar rakk xam moo moo tax waa ji waa ji julli farata gi waa ji doon wax naa mën a waaxu baax na mais xam fi ngay des tànk sëriñ bi bala nga koy liggéeyal boo amee xërte ci moom hmm. da ngay déglu dem hmm. déglu ñu informé la nan la ko bëggee sëñ Saliou Mbacké ci mujj dundam laaj nañ ko laa yow lan lan moo lan moo gënaloon sëriñ bi lan moo ko gënaloon lu ko gënaloon mm-hmm. mu ne dënn ba yàgg mu ne weesuwul jàngale ak yar mm-hmm. kon sëriñ bi bala nga koy liggéey da ngay xam mm-hmm. la mu bëgg nga teg sa tànk waaye di jëf di jëf rek day di taxamoo dara day mujj doon abba mën suuran mooy pënd bu nu jëri pënd bu nu jëri nga bàyyi ko mu dem day naaw dem mu mel ni daal safar gi baax na waaye waaye loo mën a def ci safar gi màggal gi màggal gi da nga war a def lu ko ndax mooy mooy priorité boo ko mënee gi baax na wàccaay ñi xam hmm. pour nit ñi xam hmm. am na lu xew hmm. yëgle màggal gi mi ngi waaj a ñëw ñëpp yëg waaye fekk nga fàggu loo ci màggal gi loo xam ne yow ci màggal gi nga koy def boo ko defee de sëriñ bi gërëm la dëgg la te moom ngërëmam doy na sëkk dëgg la waaw boo ko amee da lay àdduna ak alaaxira boo ko amee noppalu nga àdduna ak alaaxira ndax lim ñu indil moo doy waar lim lay indil. Mm-hmm. xad xad faka kabla. Mm-hmm. xad ba safat la. fa duru fa duru wala. wanaf wanafu jaay. dëgg la ah. dëgg la safa saqima. nafal alima. dëgg la xaadal xadima. ndeysaan ilan na jaay. dëgg la de loolu nag ku la ko indil. Mm-hmm. bisam bi war nga cee dee. moo nu sëfee àdduna ak àllaaxira. Ah, moo nu sëfee kay. ndax bu du bu dul woon moom. kenn kenn kenn kenn. li wax léegi rek. léegi léegi ma wax rek. moo daj rabbi waf ko asiri warhamni fa inni mhm. bi sunuubi mukabbalun fii sujuuni ndeysaan waaw ah, daj moo daj sunu jënk dëgg la mooy mooy li ma wax léegi dëgg la sëriñ bi kenn mënu ko fay yàlla nañ ko yàlla fayal amin amin bis bi ñu jëm nii mhm. yàlla nañ ko def ni ko bëggee. amiin yaa rabbal te bañ koo def ñun niñ ko bëgg xëlëb xëlëb géeg lépp ñun daal yàlla nañ ko def ni mu ko bëggee moom te bañ a koo def ñun niñ ko bëggee da ngaa wax indi lu am solo moom ni mu ko bëggee hmm, nan la ko sëñ bi bëggee buñ ko ah ni mu ko bëggee kay weesu jàng alxuraan mhm. sellal ko sellal ko boo ko mënul nee na hmm, hmm. wool ñu la jàngal alxuraan mhm. nga teral nga neexal leen mhm. nga jël sa ñaq teral leen berndeel leen. berndeel leen dëgg waaw ko xam dëgg-dëgg. day woo ñu mën a jàng xuraan ñu toog ci saalam wala ci ëttam. Mhm. jàngal xuraan mu waaja leen bernde. Mhm. si seeral seen xol. dëgg la. Euh, bu nappee nag mhm. ñu waaj jëm ca bis ba. dëgg la ak saa jëm ca bis mooy li nga wax léegi rek bu kenn bu kenn ginaar ba xeet waaye bu kenn rey gileem ba yéem ba yéem ndax lépp rek ngi sëriñ ndax yiw wi ci nekk daa daa daa ëpp doole ay ci nekk dëgg la bu ko jaami jërëjëf sëñ Baara xam naa waxtaan wi buñ ko toppee ndax maggal gi du jeex eh, jeex ndax li sëñ Tuubaa liggéey lépp daanaka buñ ko doon topp benn bu nekk phrase mën nga cee waxtaan ci du jeex doo ci doyal ndax li téere bi nga tiim rek yeneen téere yeneen téere yeneen téere yeneen téere mi ngi fi ndeysaan tey sëñ Baara daa mel ni tey bi ñuy ñëw dafa am lu ma xaw a gën a jaax ndax daa doon ñëw sax. Hmm. toog tuuti. Hmm. gis la ñu ñu ñu ñu ñu ñu waxtaanee. Hmm. alxuraan ak daara ji tey nag bi ñu ñëw war a waxtaanee màggal gi. bu fekk fi ay nit yu yu bari bëree bëri. surtout ku ku ku toog rek. Euh, ni ni ni ni sëñ Bara laay laay laay laay seet. loolu daa am lu ci lu ci dox ci diggante bi wala. waaw xam nga nit ñi moom fu ñu yaakaar rek fa la ñuy jëm. fi ñu yaakaar ne fu ñu fa demee seen aajo faju rek fa la ñu jëm. dëgg la. waaw ñi feebar ñeek ñi am xaajo ñeeg ñi bëgg a tukki mu mu të. Ah, waaw ndeysaan bu ñu ñëwee fii rek dëgg la ñu leen mhm. dañ ci gis seen bopp moo tax dañ sànn ah, moo tax nga fekk ah. fii fees del dëgg la nga baal ma nag waroon a jël na déedéet loolu la suñu taw féex la ndax da ngay da ngay bëgg saa su nekk yokkute di ca am ñu a bari sax ci biir émission bi ni gis nga ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw ak kii di naan la ñi ngi dem ñëwaat incha allah ndax euh, loolu boo bu ñu si woon sa bopp ci ci yow amaana du du demee ni mu demee yàlla nay gën di xat yàlla nay gën di yàgg tey beneen bi mooy sama diggante yow ah, eh. safar yow sëñ Tuubaa nu boole incha allah ndax ba fàttali ko na fukki at ak juróom uh-huh. am safar gu fii ci uh-huh. jàkkaay Alpha Combaan waaw waaw ma war a jàng safar gi uh-huh. nga nga nga agsi fa waaw bi ma jàngee pare nga dama ah waaw sa jàng bi murite na a neex de ah, eh, waaw foofu sañ foofu lañ fa sante ko la fii ci jàkkaay Alpha Combaan waaw yii macha allah yow loolu loolu loolu loolu yow ko ni Sëriñ Tuubaa mënu boole Sëriñ Tuubaa ñu boole te ci weer wi la ñu boole te boobu ba léegi mu rafet nag waaw te ba léegi kon bu ñëwee hmm. ak RTT TV am émission Al Ihsan ñuy waxtaane safar gi loolu dañuy daal di neex lool neex lool lool lool di la ñaanal li sa sa jàmm gën a yàgg sa tawféex hmm. sa kàddu mujj Sëriñ Bara waaw sama kàddu mujj lépp rek ak génnul màggal gi hmm, ndeysaan màggal gi dëgg la mbégteeg màggal murid yi nañu waaj màggal gi murid yi nañ ci def luñ man ak luñ deful. Mm-hmm. luñ ñu amul. murid mm-hmm. yi nañ xam ne kii. Mm-hmm. kii moo ñu sauvé. murid yi kii. di Seexul Xadim moo sauvé àddina bi. bind na. bàyyi fii ñu koy jariñoo. ñu koy jàng. yenn ñi yenn yi wax nañ leen ko mu soobu ci géej gi. la mu soobu ci géej gi rek jariñ na àdduna. dëgg la yenn yi mu suul ko fii. ci Sénégal. kon mboolem wax nga si commencement émission mboolem ku dëkk Sénégal. wala Afrique. Mm-hmm. amel nga ni ko Cheikhul Khadim. dëgg la mm-hmm. boo amoon bis boo boo ko wooteel sax. Mm-hmm. màggalam ji bu ñëwee nga def si waaw def def ci def ci de ndax ndax da koo ñor de. mus la digle lenn. lu dul màggal màggal gi waaw moom rek mooy bisam. mus la ni kaay leen wax leen sant ma. waaw ndax maa leen sëbee yéen. waaye dafa ni. kaay leen sant leen ma sama borom. ndax yëg na li ko yàlla defal. kon kon bis bi yàllaa ko moom sax. waaw loo ko yàlla defal. yëg na ko dëgg la. moo tax mu ne kaay leen sant leen ma sama borom. Mhm, dëgg la koo xam ne sama mbégte daal sa sa mbégte la. Mhm. kaay leen sant leen sama borom. kon ñun ñëpp. Mhm. yàlla nañ ko def rek. amiin yaa rabbal ni mu ko bëggee li ma waxoon léegi daal moom lay baam. amiin yaa rabbal yàlla nañ ko màggal ni mu ko bëggee. amiin yaa rabbal te bañ ko màggal ñun eh, niñ ko sentiré. dëgg la yàlla nañ ci am ngërëm sëñ Tuubaa. amiin yaa rabbal sëñ ma tax a yàgg bu téwér rek. amiin yow it nga yàgg fi ndax ci bëkk ak màggal gi. maa ngi yër Jazaawu Sakóor. ci biir mu naan képp ku màggale bi surtout kémb mu ne ko jihaat jihaat nga jihaat te xoolal yool bi ci jihaat yaa ilaha yool bi gi garaatu jihaat garaatu jihaat am nga jihaat ah. nga aj aj te gis nga li nekk ci yoolu ak waaw ajul mabrur yaa dara do fayam am nga yool waaw képp ku màggali bi su tukkeem ba jihaar ak aju umra am nga yool ba am yoolu jihaat waaw am yoolu aj màkk waaw mu ne wax a jatan liman bi dox fee irtada waaye waaye wax a jatan liman waa jatan li man bi dox fi ittada waxu jatan ala mu xaalifin xadaa waaw mu ni màggal gi nit ak jinne ak malaaka ci mën la booseen la a fay teew waa mm-hmm. ko indiwaat ci zaw sakoor sax sëñ Moussa Ka waaw da ko indiwaat ci zaw sakoor mu ni waaye sëriñ baa ko wax ci mën la booseen waaw mi ngi noonu xoolal ni nit ak jinne ak malaaka ñëpp fay teew waaw xaalifin xadaa mu ni màggal gi nit ak jinne ak malaaka ñëpp a fay teew ñëpp a teew dara jëy sëriñ Tuubaa bis bi lay siw a fay teew kon kon ni ñu ko déggee noonu ñëpp a fay teew Cheikh Baara mm-hmm. Cissé mu alaaj ñu ko Cissé mm-hmm. moom lañ seet si woon tey mu waxtaan nañu ci njariñu màggal. Hmm. ak it ci biir njëriñ gi mu wax nu itam. Hmm. weer wi tàggoo. Hmm. di weeru mu mu mu xarram. waxtaanuñu si ngëneel li ci nekk. ak ngëneel yi ci ci suñu borom fàggul. ak xew ci lislaam yu bari. ci weeru mu xaram bi la la la la amee. te gis nga màggal gi ci diggante bi mu nekk. safar gi fi mu diggante dafa nekk mu xarram. nekk safar. ba pare rabiul awal gàmm mooy weeru ah, gàmm weeru gàmm muy weeru yonent bi nga xoolal kon digg diggante boobu noonu nga xam ne kon sëñ Tuubaa yéeme na léppam génnul génnul génnul génnul génnul islam loolu laa wax léegi de waaw waaw comme ni ko ni ko sëñ Baara waxee bara mi xaalixo min si waaw waaw waxaa de nii man laa yuraa sir waaw ndeysaan dëgg la hmm. mi ngi noonu kon moom it bu doon nit ku baax ku yàlla baaxal hmm. muy boroom xam-xam hmm. di ku ku ku ku yàlla leeral xolam doon nit ku baax doon nit ku oyof ba pare moom it fa fa ma fa waajuram tegoon tànkam ba léegi ma nga fa teg bu sëñ tubaa li gars yi di wax sëñ tubaa moom jugu fi waaye bu doo ñëw ci saayir du soppi doxinam ndax mi ngi ci lil Moustapha nawaytu baayu jëdd du xaw sëñ tubaa sunnatul xaraa wa inni ahmadu di di di mottali diine ji di di di xool diine ji sax mat na waaye di ci di ci di ci di di ci dox ni nga xamante ni moom la fa waajuram nekkoon di jàngal xale yi bu leen jàngalee ba pare tarbiya leen bu leen tarbiya leen tasfiya leen bu pare tasqiya leen waaw ku fi ku fi jugee foo dem dangay mën a bokk ndax di fekk foo dem ñu baree bari ay cadre lan mu téye leen fa ñu nekk di fa liggéey lépp ay cadre lan te fii leen yaroo bu leen jàngal alxuraan rek dem doyul ndax nit da nga la ngay def ci moom mu jariñ ko mooy yar mu taxaagee dañoo dajee bërki dem ba ab tudd muy wax lu am solo mu ne dafa am benn daayira bu ko siyaar bu siyaar suñ mu taxaa suñ mu taxaa yabal ko ci daayira boobu pour mu dem waxtaanal leen suñ mu taxaa ni ko boo demee na nga gën a soññu ñu defar jikko yi doo nga yor jikko yi defar jikko yi doo nga yor jikko doore jukki jukki yi loolu loolu loolu li ci ëmb daa bari loolu bind la waaw bind la su defar jikko yi ba pare doo ko yor jukki yi ndax boo defaree jikko yi boo yoree jukki yi lay mën a jariñ kon sëñ Bara yàlla na yàlla guddal saw fan ñii nga xam ni ñu ngi fii ñëw saa su nekk itam di sàkku barke ak ak xéewal aajo ju dit am bu ñëwee yàlla na ci gën a gis boppam donte mi ngi koy gis ndax fii daal di fajab aajo la ndax ñu fi gis sànq fu dara newul duñ fa ñëw te beneen bi mooy fépp fu nu ñëw dem gis nu seen bopp doolu fa gisaat te fii néew na nga ñu fi tàkkusaan te boo teelu te ñëw pour nga pour pour ñu teel laa gis du du du du du yomb mm. waaw dina yeex kon nit loolu sa sa sa sa sa sa sa tawféex la ak sa sa sa sa taysir bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay centralisé kon yàlla si jàmm gën a yàgg amiin tey émission Al Ikhsan li leen indi loon ki ko doon def seen mbokkum taalibe Baye Ass Ngom mm-hmm. ànd ak caméraman bi Doudou ñu ngi gërëm mm-hmm. waa RTT TV yëpp mm-hmm. di gërëm waa di ci njiital bi président Mamadou Seck nga xam ne sa xarit la Xaadim Soumaré doomam doomam mi ngi fii ci daara ji fii ay mbàkke mbàkke fu ay kilifa yu bëree bëri seen i doom mi fii ndax fii alaaj daara alaaj Ndiouga Cissé ñëpp xam na ne daaree alxuraan bu barke bu suñu borom barkeel la jaxaw gi yi tamit bari waaye kuy tudd da nga naan sëñ baara hmm. kuy wàcce lu kaamil da naan sëñ baara hmm. kuy ñaan lu jabar da nga naan sëñ baara hmm. diggante yu xaw am ñagas-ñagas sax da nga naan na na seeti sëñ baara waaw comme mission am na ko sunu borom gën a kàttanal gën a dëgëral ba lépp li fi lu fa nit di wut si rek yàlla na fa dajeelu kawe njortam ci barke ku tedd ki di gërëm waa jaxaaw gépp sunu yaay yeeg sunu bàjjen yeeg ñu fi nekk ñëpp ak Cheikh Moussa Seydi sunu xarit nekk ci wet gi ñu ngi siyaar ñëpp di yéene ñëpp jàmm di ñaan màggal gi ñu dugg yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm ndax gi lépp jàmm la lépp salaam la bisu féex la bisu naatànge la lépp màggal goo xam ne boo ko defee di nga am yoolu aj di nga am yoolu jihaat ak jihaat gis nga pour nga nekk ci waa ahlu badri sax la nga war a deg suñ tubaab ni la boo ko màggalee ni mu waree di nga am yool ba di am yoolu aj di nga am yoolu umra kon màggal gi ñun bu du woon loolu sax li sëñ tubaa defal sax daa war a nekk chaque jour ñu di ko màggal ñun li sëñ tubaa defal hmm. sëfi gi sëñ tubaa sëfi àdduna ak alaaxira hmm. dañ ko war chaque jour saa ko yéegee di ko màggal di ko jërëjëfal saa su nekk kon loolu émission bi Alassane indi loon bu ko defee beneen yoon rek ak émission Al Ihsan ak aneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu مرتيا واسدني أولو منزا قدا وادقا أبدا يا ربي وبربي في الوهد والقربان